Rewmi 24 TV. jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen a ngi koy topp ci site internet bi. réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy di rek daw làkk gu metti gi nga xamante ne rek moom la aji Raby Sarr nekk nag ci diwaan bu Europe mu nekk mbir moo xamante ne rek dara yóbbewul ko ginnaaw bu mu jiiñee kii di Ousmane Sonko mi nga xamante rek jamono ji moom moo fi nekk nag élimaanu jëwriñ bu njëkk maanaam di premier ministre bu Sénégal kii di aji Sarr nag ci nguur ko Macky Sall rek da ko daal di jiiñoon ab viol ba noppi nag bañ jotoon ci daan sax kii di Ousmane Sonko waaye nag daal bi nga xamante ne rek moom lañ ko ko daan ca beneen côté ba lañ ko daane woon di appel à l'insurrection moom Adji Sarr nag ginnaaw rek ba Macky Sall wàccee ak ay farandooram nag dafa daal di daw rek wëtari diwaan bu Mauritanie nga xamante ne rek ci yoon suuf bi nag la ko jaaree bu mu demee ba diwaan bu Mauritanie ci la daal di dugg rek diwaanu Europe fi nga xamante ne nag moom mooy simis fa la daal di nekkoon waaye moom ci jëmi boppam rek dafa dal di am rek ab jafe-jafe ndax amul benn këyit bi wane na moom ci jëmi boppam rek ab daw làqu la ndax mbir mu nu mel nag yombaluñ ko ko benn yoon laata nag muy jugee ko ci diwaan bu Suisse daal di diwan nay dem fi nga xamante rek mom moy bu France way lu nu mel nak jot ko am mu mel rek kii di aji sax jamono ji mu ci guddi gu beut satagul ndax fu mu yenn rek dañ ne ko danduma du fi liko waral du len rek du dul amul demande bu wane ne rek état signé nako wala sax ñu bokk ci ñi nga xamante rek ñoy wa waa wo dal nañu dogal mbir mu nu mel motax nak pour mu am app demande bu wane ne rek daw làqu la daal dinay jëfe lool ci ki nga xamante rek mom moy aji sax bu ñu défé ak patali nak ki nga xamante rek mom moko fi wutu moo fi wuutu Macky Sall jamono ji di son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Fay mi nga xamante rek moo topp ci bopp nguur gi fal ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mi mu jëy noon viol nak ba ay bakkan yu bari rek dal ci des nak naam sax ñoom toog nañ waaye nak amul benn yoon loo xamante ne rek ñu ko koy toppee waaye def guñu benn plainte buy wane ne rek kii di Adji Sarr nañ ko teg loxo waral nak muy kërti kërti di daw ak laqatu du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen def ci teew lu bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification mun am yeneen i xibaar.